lëmbee na actualité bi muy mbirum euh, AstraZeneca di vaccin boobu nga xamante ne euh, euh, laboratoire suédo-britannique bi ñoo ko ñoo ko defar mu jur coow sunu nguur gi moom démb sax dégg nañu wax OMS e, ñu ne dara nekku ci baax na nit ñi nañ ko mën nañ koy wéy di jëfandikoo fii moom ba léegi ñu ngi wéy di ko jëfandikoo naka nga ko gisee. waaw ñun li jàpp mooy d'abord comme ni ma ko yàgg a waxee man ñàkk yi d'accorduma ci man gëwuma ñàkk yi du ma ñàkk sama njaboot du ñàkk. loolu moom yàgg naa ko Sénégal gi yëpp xam nañ ko te du ma digal kenn mu ñàkku mais même ku dem bay ñàkku da ngay ñàkkoo ñàkk bi président de la république ñàkkoo yow nan ngay indee ñàkk boo xam ne da ngaa ñàkk say nit muy euh, vaccin Sinopharm muy chinois bi. Mhm. vaccin chinois nga andi ñàkku ci yow ñàkk ci say ministre ñàkk ci say mbokk ñàkk say jegeñaal ba pare dem wuti beneen ñàkk boo xam ci àdduna bi nee nan baaxul. wala boog amul efficacité ba am na ay jafe-jafe yu mu def ci réew yu bari ba réew yu bari arrêté nañ koo ko nga xam ne day day wayal deret day wayal deretu nit ki loolu lañ gis ni moom la def ci ay effet secondaire Afrique du Sud arrêté ko fii ci euh, Afrique également arrêté parce que dañoo gis ne variante bi ñu am foofu AstraZeneca waaw mais d'accord déglu ma rek am ay état yu bari yu ko arrêté ci àdduna bi lu mat lu mu gàtt gàtt juróom benn pays européen yoo xam ne ñoom nee nañ ñàkkootuñ AstraZeneca wa Zeneca man jàpp naa ne ñun mais ñun Sénégal waruñu jël benn risque mais loolu c'est extrêmement grave man li ma gëm mooy benn ñàkk lañ fi mën a indi mais président de la république mënta ñàkkoo benn ñàkk ba noppi ñàkk nit ñi beneen ñàkk. mais ñàkk boobu doyul. mais non dama ni bi initiative COVAX lañ ko jotee. xam ne la dëkk yu bëri jot si Maroc ñu bëri jot si. ñun Sénégal ku fi jël risque jëlal sa risque. ay médecin ci yeneen réew ñoo ne vaccin boobu baaxul seeni réew arrêté ko naam dégg naa OMS ak waxu caaxaan yi ñuy wax euh, ak euh, la commission de du médicament bu Europe euh, mm-hmm. yooyu yëpp dégg naa ko mais man li ma gëm mooy sénégalais yi def leen ndànk ci ñàkk yi yàgg nañ leen ko wax wax nañ leen ko waxati leen ko waxati leen ko bu ngeen demee bay ñàkku ñi wóolu ñàkk yi bay ñàkku man wóoluwuma ñàkk yi mais ñii wóolu ñàkk yi bay ñàkku nañ dem ñàkkoo bi Macky Sall ñàkkoo parce que bi mbas mi duggee ci réew mi moo nu wanoon na nuy raxasoo moom président Macky Sall moo nu wan nu ñuy takke masque président Macky Sall moo ñu wax naan nan war a comporté woo ci biir mbas mi ba ñàkk yi ñëw kon président Macky Sall bu ñàkkoo lim ñàkkoo ñàkkoo leen ko yéen sénégalais yi ci ñàkk yi doy bu leen ñàkkoo mukk beneen vaccin boo xam si président Macky Sall ñàkkoowu ko lii laa am comme message parce que ñu nekk ci ginnaaw ñun xam nañ leen OMS wóoluwuma leen bala maa dañ naan OMS nee na OMS dañ la wóoluwul parce que OMS moo ni rëcc ci feebar bii li ñu leen takkal dëpp le début moom moo koy organiser à travers le nouvel ordre mondial. moom moo yore seen programme di ko doxal ci mbirum santé. kon OMS googu bala maa dee ñu koy lim ñun OMS dañu wóoluwul. ok kon nag ñun ñu tey ci ñàkk yi. ñu ñu terminer si ñi d'accord a ñàkku nañ dem ñàkkoo Sinopharm bi. nañ ñàkkoo vaccin wu Chine bi mooy vaccin wu chinois bi. bu ku ci ñàkkoo beneen. yaa ngi jël ay risques. surtout nag ñaar yi nga xam ne moom na ko ñëpp moytu. andeeguñ ko nag mooy Pfizer ak Moderna boobu moom médecin yi ci àdduna bi yëpp presque ñi ëpp ci ñoom ñoo ni méthode bi ñu ko defaree musuñu koo gis. non mais boobu koy def ci nit parce que conservation mënuñu waaw même pexe lañ bari. ñun daal sinon euh, ñun daal li ñu leer. mooy Pfizer ak Moderna. Mm-hmm. du samay wax. Mm-hmm. waxu ay spécialistes yu nekk ci àdduna bi la ay médecins ñoo ni méthode ARN messager lañ jaar te boobu mos ñu ko essayer ci nit ci ay mala lañ ko mos a essayer bu kenn nangu ñu dugal ko ci sa yaram parce que wuurul parce que effet secondaire yi ñoom laboratoire yi nee nañ duñ ci jël benn engagement bu amee ay effet secondaire na ko état yi jël. mu ne bi ngay wax ni mu ëpp efficacité yeneen yi fi nekk. waaw mais même ko essayer parce que ñeneen ñi méthode yi ñu utiliser de tout temps ñàkk yi ñuy defar ci àdduna bi yëpp moom lañ koy defar mooy néewal doole wala nga rey ko. injecté ko eh, dugal ko ci yaramu nit ki. Mm-hmm. bu ko defee bu ko feebar bi duggee rek yaramam daal di mm-hmm. développé. ay ay ay soldat yu ko mën a aar. loolu moom ma sa am. Mm-hmm. ñu tegee ko nee def lu leen neex moo tax ñun daal li ñuy wax sénégalais yi. teey leen ci ñàkk yi bu ngeen demee bay ñàkku. ñàkkoo leen bi président Macky Sall ñàkku ak njabootam ak ay ministre voilà ñu leen di ñu daanelee dàmm ak njàng meeg njàngale mi. Euh, débat bi am na solo trop mais loolu tamit yow mënuñu toog ak yow ba jóg te duñu wax ci njàng meek mi actuellement gis nañ mu yëngatu ba ñi di réclamer ay par ci par là di annoncer ay ay plan d'action yu lu mu lay lu mu lay inspiré ak G20 def nañ benn sortie di wax ne Mariama Sarr la ñuy sàkku mu dem. waa jërëjëf xam nga ñun li nu jàpp mooy euh, njàng mi bu dee am na secteur bu war a yuuxu ñu ñëw wàllu leen ñun la ndaxte lépp li nga xam ne mooy sunu àq ak sunu yelleef dañ ñu koo xañ. jàngalekat yépp seen xol dafa dafa jeex fan yi ci année yi ci li am ci seen carrière actuellement jàngalekat boo ci gis bu waree avancer du avancer bu ñu ko waree jox inter rappel am du ci jot amee nañ lu ëpp téeméeri milliards ci ay rappel yoo xam ne ba léegi ñu ngi ko naj te heure bu la neexee génne seen i milliards bërki démb sax bi président Macky Sall tiitee ci xeex bi bi mu amee génne na 300 milliards te pourtant ñoon 100 milliards li ñu dina mën a andi dal ci biir njàng mi te bor la du xaalis boo xam si ñun dañ koy laaj pour sénégalais yi ruube bor la bu ñu ameel maanaam ay avancement yoo xam ñoo ko am mérité ko ci loi réew mi ni mu mel ak liggéeykat bu nekk nga war a avancer ñaari at ak ñetti at yu ne lool lañ dajale ba mat ëpp téeméeri milliards nanguwul ñu koo fay. beneen bi mooy suñuy këyit yi firndeel suñu avancement ca fonction publique ñu ngi ko téye téye bu jéggi day wa Mariama Sade lambar lambar diggante Dakar ak Kaolack nangu la toog bureau am signé suñuy acte am na jàngalekat yoo xam ñu ngi toog actuellement at ak genn wàll mënuñoo jot seen seen at te te te at ak genn wàll bi yëpp mi ngi ci signature de ma nga ca taabalu ministre bi tegal nañ ko ko ca taabalam nangu la dem toog signé ko te signé boobu day tax enseignant bi mën ci bénéficier wu donc loolu c'est un problème donc lenteur administrative ñoom ñoo ko tey dañuy wax ne président Macky Sall li ñuy demandé mooy ñu tekki ndomba tànk Mariama Sarr parce que nag ministre bu demee ba mënatu la am temps wu toog parce que ministère fonction publique du ministère boo ko caaxaan. foofu c'est un ministère technique boo xam si carrière liggéeykat yi nga yore ci sa loxo kon nag du nga ko jox ab politicien buy wër de tambaambaalu ci réew mi kon nag ñun leen wax mooy na tekki ndomba tànk Mariama Sarr andil ñu ministre boo xam ne mën naa yor euh, fonction publique bu ko defee acte jàngalekat yi ñu signé ko te ci lay profité wax waa g ak waa G7 que bu ñu yem rek ci dénoncé dénoncé daa yomb trop bu ñu yem ci loolu nan dajale doole ji ñu benn plan d'action bu dëgër boo xam ne dañuy demander. ñu jëlee ñun fii Mariama Sarr ñu ñu signé suñuy acte yépp acte d'avancement acte d'intégration acte de validation ak acte de reclassement même ñi dem retraite acte de radiation ñi ngi xaar du ñu am seen dañuy toog juróom benn weer du ñu leen jox seen acte de radiation ba du ñu fayee ko te dem nañu retraite kon nag yii comme moom loolu la fi nekkee moom Mariama Sarr nañu nañ nañ taxaw xeex ak moom beneen bi nag mooy système de rémunération bi comme léegi am nañ xaalis ba génn nañ seenu décret bu bees boo xam ni ñu ngi jox ay fonctionnaire état bi ay sept cent mille pour nee nañ ñuy defar seeni i oto ñu koy defaral seen bopp ak ay di defar eh, ak ak di jënd seen assurance nee nañ ñu jox leen mille mille 700000 500000 mille ci ñoo xam ne ëpp ñu benn dayoo jàngalekat yi surtout chef de service yi nekk njàng mi njàng daa am ay chef de service danoo am ay proviseur am ay principaux am ay directeur d'école am ay enseignants gradés yu nekk ci système bi ak enseignants yëpp parce que koo ci jël ñun jàngalekat lu mu gàtt gàtt am na am na am na baccalauréat waa léegi ñuy séddale xaalisu réew mi fonctionnaire yi yi ba jàmm. dan ñuy aligné ci ñoom defal ñu indemnité spécial boo xam ni dañu ne dañuy yokk suñuy payoor comme ni ñu ko yokkale ñeneen ñi parce que loolu mooy indi jàmm loolu tax ñun looloot nañ ko boole ci xeex bi ñu yokk les salaires des enseignants comme léegi am nañ xaalis parce que dañu woon léegi na ñëpp xaar léegi président Macky Sall janvier bii rek génn na décret bu bees boo xam ne nee na léegi moom euh, day yokkal salaire ñi ko neex léegi nag ñun jàngalekat yi danoo bokk ci réew mi kon nag jot na ñu lawal ko ci jàngalekat yi ñu yokk salaire jàngalekat yi ba bi xoolaat le système de rémunération boddi compte bi ci am ak jaay doole bi mu dakk lii nag li koy li koy saafara mooy ñu bàyyi sunu divergence yi ñu suñu biir ñun waa G20 ngeen joxante loxo ak G7 ñu joxante loxo daal di nekk yenn say ànd àndandoog jàngalekat yëpp. Mhm. ñu taxaw jàmmaarloo ak nguuru président Macky Sall pour ñu joxum suñu àq ak suñu yelleef te liy wan loolu mën nañ koo def bi nu ma téyee garde à mhm. jàngalekat yi danoo dajaloo rek ñu bàyyi ma bu dul woon ak jàngalekat yi ba ci kaso bi. kon nag booba dañoo bàyyi nag lépp teg ko ci suuf àndandoo pour wan leen ne bu ñu àndandoo lu mu bëgg mën nañ koo am te man pare naa pour lépp loo xam ne sacrifice la pour ñu mën a ànd rek nee naa sama gars yi ne ñëpp pare pour ñu def ko maanaam nañ gis rek intérêt jàngalekat yi nañ gis rek intérêt école bi ñu teg lépp ci suuf ñu àndandoo ñun waa g ak waa G7 ak syndicat yi bokkul ci ñaari kuréel yooyu ñun ñëpp ñu toogandoo waxtaanandoo gëm ni défendre jàngalekat yi rek moo ñu war a ñor. ñu taxaw jàmmarloog nguuru président Macky Sall mu régler problème mu attu jàngalekat yi mu téye fayit jàngalekat yi seen i rappel yóbbu leen formation ñi ci war a dem formation bàyyi jaay doole bi ba noppi revoir le système de rémunération dans le sens de l'équité. jërëjëf jëf Mbodj ñu ngi lay jaajëfal. mais maa ngi lay euh, sant bu baax. di la gërëm yow Moustapha di kontaan toujours comme ni ma koy waxee di ñëw sa émission. parce que émission wax dëgg yàlla ay questions yu pertinentes ngay posé te thèmes yu am importance rek ngay ngay ngay ngay teg ci table. kon nag maa ngi gërëm internautes yëpp. di leen sant di leen gërëm euh, di euh, gërëm également ñëpp ñi nga xam ñu ngi doon seetaan di gërëmaat jàngalekat yëpp di leen santaat encore une fois parce que gëm naa man ne tey su ma nekkee ci biti. mobilisation jàngalekat yi ak élèves yi ñoo tax parce que bu doon loolu ba tey maa ci kaso bi. maa sant ñëpp di leen gërëm jërëjëf am nañ ci ñu taxaw bi ñu la bi ñu la tegee ñu koy jaaj ñu lay jaajëfal Dame di ko remercier ci invitation bi mu ñu nangul ba ñu seq jotaay bi ak point yi fi soulevé yëpp di leen jaajëfal mbokk internet yi àndoon ak ñun si suñu jotaay bi Dóor waar ak Mansour Dramé ñoo nekkoon ci caméra yi jaa ngeen jëfa beneen